ñoo ngi gëm Abdoulaye Wade yéenekaay gi nee na ci biir opposition bi dualité bi nga xam ne moo am dox diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall loolee moo tax parti bii di PDS muy tuule dina naax saay ndax jamono ji ci lu ñu fi man di wax Ousmane Sonko Macky Sall Ousmane Sonko Macky Sall yéenekaay gi jëkkali mag Assane Sambo nee na jamono ji en tout cas ñi nga xam ne ñooy waa PDS ngir ñu jógaat il faut ñu liggéey bu baax a baax yéenekaay gi nee na su dee nag PDS dañoo bëgg sukkandiku ci Macky Sall ngir Karim Wade ñëw ci réew mi boobaa nag ñoo PDS nag bu ñu bëggee Karim Wade dellu siwaat ci réew mi il faut ñu xeex du sunuy kàddu dañuy nettali ma ngi ci yéen a kaay gi di réew mi quotidien Assane Samb moo xëy daal di koy bind nee na nag retrouvailles amoon na diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall waaye nag mbir ma dafa jékki-jékki rek daal di tàbbi géej ca yéen a kaay gi de la Tribune bàyyi mbir moomee wax ci Macky mi nga xam ne fan yi ñu génn demoon a ca diwaanu Thiès waaye nag la nga xam ne jamono ji am na ñu bare bari ñoo koy laaj mooy ndaje moomee nag lan moo tax Idrissa Seck fekkiwu ko fan la Idrissa Seck dugg jamono ji daal li nga xam ne moom la ci gaay yi di wax sax mbir mu doy waar a doy waar la kenn ku nekk ak la ngay laaj yéen kaay gi di témoin xëy nag dañu xibaar naan ñu Macky Sall bi mu demee sa Thiès nee na mburu ak soow léegi tey Gloria bi ñëw waa kan mooy Gloria bi yéen kaay gi de la témoin nee na est-ce que na Khalifa Sall du Gloria ndax na Khalifa Sall jamono ji gis nañ ne maanaam jege yantoo ak Macky Sall daal mbir mi ma ngi gën di leer yéen kaay gi de Les Échos ñu xëy fekk fa ay jege ñaaley Khalifa Sall jege ñaaley Khalifa Sall yi ñoom nee nañu Khalifa Sall du Gloria benn yoon Khalifa Sall du Gloria yéen kaay gi la témoin nee na en Sall mooy jamono ji ñu bare bari ñoo ngi wax ne Khalifa Sall mooy gloria yéene kaay gi de la sax xëy duñu xibaar naan ñu ay fonctionnaires yoo xam ne jamono ji ñooy tong-tong di séddoo bande de filao yi nga xam ne moo nekk géejawaay loole nag na ko waa géejawaay xam yéene kaay gi ne na moo taxit askan wi nga xam ne ñoo yeewoo géejawaay jamono ji nag daan nañuy fippu ndax bande filao yi nga xam ne moo nekk géejawaay ay fonctionnaire jamono ji ñoo koy séddoo yéene kaay gi di réew mi ko di cee xëy wax ci loi bi jëm ci wàllum terrorisme am na lu toll si ñaar fukk ak benn ci ay député yoo xam ne def nañu ab recours fi nga xam ne mooy conseil constitutionnel ngir nag ñu daal di annulé loi yooyu nga xam ne daat nañu koy modifié ndax ñi nga xam ne ñooy député dañoo gis ne loi yooyu baaxul ci Sénégal yéene kaay gi de la ñu koy fekk fa Serigne Abdou Bara Dolly député bokk moom nag jamono ji li nga xam ne moom lay sàkku mooy maître Malick Sall ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi mu daal di tekki ndombal tànkam yéene kaay gi de Les Échos ñu fekk fa Cheikh Bamba Dièye nee na nag su dee conseil constitutionnel maanaam joxuñu dëgg danañu def ab recours fi nga xam ne maanaam mooy CEDEAO yéene kaay kaay gi de libération ñu koy fekk fa Abdoulaye Daouda Diallo ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum finance ak wàllum budget daan nay wax performance yi nga xam ne état bu def na ko depuis 2012 ba léegi jëm ci wàllum agriculture wàllum miina wàllum énergie wàllum hydraulique éducation santé protection sociale assainissement yi a kaay gi di réew mi ko di jee xëy dañu xibaar nee na démb ci conseil des ministres bi njiitu réew mi di président Macky Sall jël na ay engagement jël na ay fortes mesures ci lu jëm ci wàllum économie numérique wàllum industrie wàllum assainissement assainissement yéene kaay gi de la Tribune xëy dañu xibaar naan ñu bëri ay élèves yoo xam ne démb ca Tivaouane dañoo wàcc ci mbedd mi ndax nag élèves yooyee dañoo gis ne wàllum góor jigéen gi dañu koy defal promotion ci biir njàng meeg njàngale mi yéene kaay gi de Libération xëy dañu xibaar mbir mu doy waar a doy waar moo xam ne ci yëmbal benn baraak fa la xewee benn waay boo xamante ni fruit lay jaay moo doon jël fruit ba di ko jox xale yu ndaw yi ngir nag di leen di tëddee am na ci benn xale boo xam ne fukki at ak ñaar la am jox na ko ay fruit yegg na ci kawam ay yoon yoona am na si sax benn